Sénégal jaral na la lu ne ndax gis nañ gars di la TikTok gars yi di la statut mooy bi ngay naan bi nga defee sa euh, drapeau Sénégal yaakaar naa ne gis nga ko tey Lions yi dem ñàkk suñu diggante ak ñi nga xamante ne mooy Côte d'Ivoire tey bu erreur amee wala boo amee looy yokk ci équipe bi lan moo fa am wala lan ngay wax li nga xamante ne mooy équipe waaw di ñaanal askan bi tey boo dee xool tey équipe la boo xam te ñëpp dañ ko bëgg tey football bu jotee ñun ñëpp lañuy manque amul kii judit wala kii chrétien amul pays li ñëpp dañuy ànd daal équipe ñun ba ñuy seetaan maanaam ba ñuy seetaan football dafa yàgg ndax man les sœurs moo nekkoon sama équipe am déet ñuy topp di siiw tey bu Sadio Mané def na classement ñëpp taxaw nañu am déet entraîneur la xëy na def na lu ne seen si làmb mais dafa am match yoo xamante ni ah ah dama ni xëy na en Sadio Mané kii waaye Aliou Cissé la waaw xëy na def na lu ne ci làmb indi na fi coupe tey tey boo indee coupe tey ñu wax dara mais dafa am charte yoo xamante ne da nga koy tegal équipe waaw am na charte yoo da koy tegal équipe tey moom am na lu Aliou Cissé njëkkoon wax bu njëkk ba ni képp koo xamante ni dangay ngay fubal dëkk naari du la jël waaw mi ngi noo xam ne loolu moo ko woon tey bu fekkoon dafa bu maintenir maintenir woon loolu tey ba tey tey mën na am ñu bëri ci bopp ndax dëkk naar yi seen fubal tey boo fa nekkee seen fubal day yomb bokkul ak Angleterre waaw tey boo fa nekkee day am boxing day da mais ba dëkk naar seen fubal mën nañoo bàyyi ba reer soog a fubal wala xëdd soog a fubal xam nga yooyu noo dëgg la barke alxuraan kër yooyu rafetul mais bu dee Angleterre la tey bu dee Angleterre la Boxing Day moo fa am da ngay fubal taf taf la tey da ngay xool tey Sadio Mané ñëpp a ko ñëpp a koy remercier tey tey mënoon na tey jël ñëpp sax mais teewul moom da koy indi pour honneur waaw ndax boo xoolee Égypte defoon na ko Assane Assane indi ko tey boo xoolee Allemagne defoon nañ ko seen jour. juum foofu. ndax nit dañ ko wax dëgg ndax équipe bi ñëpp ciy wax ndax Sénégal lu ñu ne dugguñu dëkkuñu Burkina Faso non dëgg la équipe bi ñëpp ci wax am de tey boo dee xoolee demoon na ni lépp nag ci dogalu yàlla la man xamoon naa ko ndax def naa vidéo boo xamante ne ma ne Sadio tey Aliou Cissé bu dee fii ngay xamee ni moom technicien la wala ci classement contre Côte d'Ivoire mooy match bu gën a nga ñëpp a ngi may seede barke alxuraan kër te di nga dox ba mooy entraîneur meilleur mooy tout buy ci classement bi lañ koy lay perte équipe bi barke alxuraan kër Euh, kon tey lan ngay wax li nga xamante ni mooy euh, joueurs yi ñoom ñi nga def nañ lu ñu mën yàlla jaam ak yàlla ak la xam nga tey a toroxal wala di dañ leen ñaan rek am déet yal na leen yàlla defarwaat am déet ñoom ñëpp tey du ku mel ni Sadio Mané tey ay ñoom. Euh, bëri na si bu tey boo dee lim da ngay juum sax waruma lim ndax ñëpp tey boo ñoom ñëpp a fa liggéey ci toog sax si baam ci football liggéey na ndax bu ñu lay jox daal yow mi football sax dañ la koy jox kon équipe drapeau bi rek la ñuy défendre di leen ñaanal daal coupe du monde bi ñëwaat daal yal na ko suñu borom def daal am ba bu ñu demee daal jël ko daal ñun ñu ngi koy ñaan àddina bi yëpp daal waaw. ñenn ci xale yi am nañu doon jooy mais rawatina Bamba Dieng dafa jooy jooy métti tey jooy yi ci lan nga ko natt ci loo koy xayma li mu doon jooy. waaw xam nga yaakaar bu tax rek Sénégal ñëpp xam nañ mooy favori ñëpp tey boo xoolee tey Sénégal ay xale yu ndaw ñoo fa nekk ñoo xam xamante ñëpp leen soxla tey bu ñëwee tey Côte d'Ivoire xaw leen def ni te Côte d'Ivoire deewoon na ba pare ah suuloon na ba ñu jullee ko xam nga équipe yi mel ma non dëgg la bu ñëwee tey ñooñu li ñu ciy gar seen bakkan te joueurs yi football nañu xam naa ne défense Sénégal pour bal dugg fa problème la ñoom ñoo xoroon a xool bu baax bañ a am penalty bañ ñu def rek xool normal ndax équipe bu mag ndaw boo demee moom sëri daf lay gagné équipe bu mag ndaw moom boo boo joxuloo ba équipe mag dema moom sa daf lay gañe ñëpp moom barke alxuraan ko mais di leen ñaan yàlla na leen yàlla euh, sàmmat daal defalaat de daal xam ne équipe bi daal noonu la daal tey mënoo cee nekk di wax dara day day metti quoi ndax ñëpp dañu jooy man da nga gis dama woon sama lépp di supporter di sakk ñawlu fukki yëre di yuux damay yuux ba sama lépp pour bëgg équipe nationale day am ñoo xam leen neex ndax mais dama xam ne ban sénégalais la tey football day développé dëkk tey boo xoolee Brésil amul damay coupe yi ñu jël moo tax Brésil développé ko am déet tey man Leicester laa doon sippe ay ñoom Mahrez ñëpp tey ba ñu nee football Angleterre di football tey dëkk naar seen football dafa yàqu am déet na angle arabe yi dëkk naar yi ak Angleterre tey boo dee xool Sadio Mané tey mun football mais football am waxtaan wax dëgg ca la xaw boo xaw na wàññeeku tuuti boo xoolee mu daanu nga xoolaat tourné waat du jugaat si kii nu Abdou Diallo dëkk naar boo fa nekk ak Koulibaly ñoom ñëpp tey nekkuñu 100 pour cent xoola Mahrez kii waaye pour cent mi ngi noonu loolu la rek am déet yàlla na leen yàlla penalty bi ñu dañoo dem vaar te ñun suñu bos demuñu vaar. waaw penalty bi moom am na moom. waaw penalty bi moom am na mais rouge Sadio Mané bi rouge la waaw ndax nu mu kiyate boobu it rouge la xam nga arbitre léegi dañuy bàyyi dara yëkkati dara man daal lu may wax ci joueur yi rek ak défense bi ak classement bi neexul noonu xaw see jub na rek loolu moo tax mais Sénégal moom penalty bi moom bu penalty bu leer a neer mais Sadio Mané carton bu boobu tànk boobu it rouge la waaw rouge la waaw. naa lay wax ci loolu. coupe moo leen yëkkati woon mais xam nga jàmm yi moom li muy bëgg ak li yàlla dogalu doon benn waaw parce que ñun lu ñu mosul gis si àdduna ñoom ñu ñu ko àndil muy coupe waaw li suñu papa yi doon xaar ak suñu mag yeeg suñu tonton ñu neex fekk ñoom ñu jël ko leen di encouragé waat rek ñaan yàlla beneen yoon ñu jël ko incha allah. macha allah léegi nag si li xam ñu ne mooy làmb ji. Anaconda préparé làmbam muy combat am diggante moom ak booy Seye 2 làmb ji dem ba ay deux semaine wala une semaine. làmb ji yàqu ci bon moment nga yëg ne sa euh, adversaire dafa blessé. jour war a def sama open press. ba nga préparé lépp. ay préparé lépp lu lépp lu war dem si open press bi soo nooy yëg lépp war na Sëriñ xaw ma di une heure côté boobu. une waaw ay treize heures noonu. nga découragé. waaw découragé naa sant naa yàlla tamit. waaw parce que jaam bi moom lu borom bi dogal la ko war a neex quoi. Mm. waaw. mos nga préparer làmb ba yegg si foofu mu yàqu mos na la def. non mu yàqu au contraire nu gaañu moom des trois jours ma def soog gaañu ñoo bëri si. Mm, nga ñëw bëri si. waaw maa ngi réparé dama gaañu ñoo bëri si maa xayta ba ñuy bëree Ibamar ba mu desee benn semaine dama arrêté contact ñëpp weer ak ñëpp ñu ne pour ma aj combat ma jéem xool ma defee médical. ma leen mun naa si bëre baa ma bëre maag réparé benn yoon laa contact benn yoon benn yoon laa si contact te yeggale ma contact bi mm. waaw euh, accord yow nga jógee ci alliance biram moom mu jógee ci Cheikh Super Jamono du Baye Fall doon ko tëgg moo ki nga xamante ne mooy Papa Thiam boobu yàqu antuwul euh, ñu xëy ñu ne ñu euh, dañuy taxawal li nga xamante ne mooy Anaconda Aliou Seyde booy Seye 2 ci yan anam la taxawee yaa ko bëggoon wala moo la bëgg wala promoteur bi moo bëggoon combat bi. yeneen adversaire lañ ma doon wax de yeneen adversaire léegi bu ñu waxee ñun seeti leen ñoom tam ñu bañ ma toog benn temps waxaatuñ ma dara may toog di entraîné nekk sama kii Modou Baye Fall moom ma woo parce que man spécial kii bi lañ ma bëggoon bëreloo Zarko Dieng bi waaw man fa laa xaar ñu déglu Ibou Laye nag moom ma sonn mu ut adversaire ba sonn seeti na mbër yu bëri ñu bañ. Ah. na ku ne. Ah, waaw waa jàmbaar seeti nañ ba sonn ñoom tamit amuñu. ñu bàyyi Ibulaay ko nekk seet tam ba sonn ku mu dem mu aju. Mm-hmm. si la ma Modou Baye Fall woo ne ma Boy Seye moo fi nekk. Boy Seye moo fi nekk te yoroon na sama avance. boo paree pour bëre ak moom ma ne ko man boo demee wax ak moom bu d'accord pare naa. nga mm-hmm. ah. yaa ngi ci ñaata combat. treize. treize combat dix. trois défaites. alors euh, que naa muy gis ñu adversaire amoo ñu ji euh, ñu la woo la ne la Boy moo fi nekk moment yi ñu la wooyee ne la Boy Seye moo fi nekk ak par rapport adversaire yi yi nga xam ni moom nga bëggoon bëggeel moom nga ñoom nga bëggoon a bëreel boog di moyes euh, diff amoon différence adversaire Boy Seye ak ñi nga waroon a bëreel. non ñu doon wax ak Boy Seye amuñu différence pour man non amuñoo différence si man déedéet. tolluwaay la am diggante Boy Seye ñooñu. moom laa lay wax man amuñu différence du ma wax seen tour ay champion ay ndaanaan lañ ma doon wax seen pour maa ñoom tamit.